bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen ñi safoo ak bi bëggee la voix di cœur ñu ngi fii São Paulo Brésil di teertu gan gu mag comme niñ leen ko waxee woon ak niñ leen ko defee ay plateau yu yaato yaatu te teertu ki nga xam ne mooy sëñ Abo ibnu si Ahmadou Fadal Mbacké di xalifa sëriñ Fallilou ñu ngi ànd ak Touba Brésil TV ak Tivaouane Brésil TV ñoom itam di ay ndaw ñoo xamante ni dañuy liggéey rek jëmale ci diine ji di leen di jaajëfal lu baax a baax ak bépp euh, site boo xamante ni euh, day yëngu ci lu tas xibaar jëmale ci euh, sénégalais yi ak information yi. Ah, kon fii ñu nekk mooy aéroport Guarulhos di ay aéroport international bu Brésil ñuy teertu gan gu mag a mag muy Serigne Abo Falilou xam naa ne ci kanam tuuti moom mu war a arrivé mbokkum taalibe yaa ngi fi. jël ay oto yu ndaw ànd ak ay biche ñëw ngir teeru sëriñ bi muy lu ama am solo muy yoon wu njëkk nag kilifa gi di fi ñëw mu doon lu mag doon lu màgg ci ñun doon loo xamante ni lu ñuy sagoo la euh, loolu waral daayira Muxaddamatul Amda ànd ak mbokk taalibe bi yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ñëpp ñëw ci teertu gan gu mag googu nga xam ne euh, mooy sëriñ Abou Fallilou kon ci kanam tuuti rek incha allah sëñ bi war a yegsi euh, Baye Fall yaa ngi fi jànkatu xasida yaa ngi fi ñu teertu sëriñ bi ñu sagal ci suñu bopp ci suñu digganteeg sëriñ bi comme ni ko si Sidi Mbacke doon waxee rek ci daayira bi weesu daan ne picc yi ñoo daan dem di fekk ci tool yi waaye bu demee tey ba tool bi jug fekk si picc yi kon nañ xam ne loolu euh, tawféex la kon ñun ñëpp nañ leen xam ne ah, tool bi ñëw na buñ ñëwee sëñ aboo Fallilu di xalifa sëriñ Fallu kon sëñ Fallu ñëw na ci réew mi kon nag na ci ñëpp fës na ci ñëpp seen bopp ah, kon tey le 3 sëñ bi yegg si ci kanam tuuti rek incha allah ñu ànd ak moom gàttandu ko euh, limousine bi nga xam ne moo ko war a jël si yegg si na euh, mu ngeen ànd ak Touba Brésil TV ak Tivaouane Brésil TV Euh, ci reportage yi incha allah ci kanam tuuti rek ñu ànd ak yéen ci yeneen reportage ci yaatal gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asalaamaaleykum mbokk taalibe yéen yi nga xam ne yéen a ngi safoo télé bi di Tivaouane Brazil TV ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar bu baax a baax bu ngeen ñu gisee nag fii ñu taxaw nii muy aéroport international bu euh, Brazil di aéroport Guarulhos tey nag ñu fas yéene gàttandu suñu gan gu tedd di sëñ aboo di xalifab sëriñ Fallou Mbacke kii ñu taxawal nii nag di suñu jëwrin sëñ Seexuna sëñ naa ñu bëggoon a laa dikte rek ay kàddu nga wax ñu loo yëg tey ci bis bi ak bis bi nga xam tey ji ñoo ngi taxaw fii nii di xaar kilifa gu gi ñoo ngi lay jox kàddu gi nga nuyoo sëñ Seexuna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di am mbégte trop ngir jàkkaarloo ak yéen ngir fas yéene wax ak suñu mbokk yi muy bis bu màgg boo xam ne euh, kenn ku nekk ci ñun tey am nga mbégte ngir teeru suñu ngan bi nga xam ne mooy Cheikh du faadal te toogee jotaayub Cheikh du faadal te koo xam ne Cheikh du faadal mate na ab jataayam lool. Cheikh Mamadou Fadal nag nekkoon koo xam ne bi ko yàlla tegee ci xilaafa gi yaataloon na lool ba doon dox ak mbokk ci diggante mboolem tariixa bu nekk Sénégal amoon na ak moom kóllëre kon nag bu yàlla dogalee doomam di fi ñëw di xalifaam. njaboot gépp ànd ñu ànd ko suñu mbokk yi waa kër Cheikh El Hadj Malick Sy ak mbooleem tarixa yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi loolu mbégte rek lañ ci am kon nag wax dëgg yàlla bég nañ loolu daal te fas yéene xaar gan gi wàcc ñu teeru ko ànd ak moom di xamle rek ne euh, ñu nga dal hôtel 155 di ci woo ñëpp kenn ku nekk rek nga xam ne gan gi sa gan la di ci woo mboolem koo xam ne yaa fi représenté tarixa bi nga bokk ak euh, mboolem koo xam ne ab jullit nga rek ñu ngi lay xamal ne gan gi sa gan la ñu ngi lay woo bëgg incha allah ñu ànd ak moom fas ko yéenee teeru fas ko yéenee ganale ndax sallallahu alayhi wa sallam day wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu kon nag kenn ku nekk na nga xam ne gan gi sa gan la nañ ko teral parce que yéene mu ñaanal ñu ba kenn ku nekk li nga bëgg nga am ko barkab Cheikhul Khadim barkab Cheikh Mamadou Fadal ginnaaw loolu sëñ Cheikh naa ñu bëggoon a xam sëñ aboo bu teewee fii ci diwaanu Brésil fii di première édition mu teew fii nii di xalifab Serigne Fallou ñu bëggoon a xam ginnaaw bu mu egsee sunu biir ndax mën nañoo xam gan gi kañ la ban bis lañ ko jàpp ak fu ñu koy defee jërëjëf euh, sëriñ Pape ci laaj yu am solo yooyu mu mel ni lu jara leeral la ndax yàlla ndogal na sëriñ bi euh, mi ngi ci yoon wi mi ngi ñëw incha allah su ñëwee li des ci temps bi xam naa di xaw a guddi dañ koy bàyyi mu dallu ndax kenn ku nekk xam ne dafa xaw a sori tuuti waaye incha allahu rabbi à partir de demain allah danañ commencé def ay organisation ay heure siyaar bu ko defee nga xam ne mbooloo mi danañ mën di ñëw di siyaar euh, nga xam ne kenn ku nekk da nga mën a ñëw saafante ak moom Euh, ba ni nga ko bëggee te it euh, pour mu gën a yaatu dañuy organiser dimanche bii di ñëw incha allah ci benn salle bu mag boo xam ne fa lañ fas yéene daje fas fa yenee ànd ak sëriñ bi waxtaan ak moom mu ñaanal taalibe yi ba bu ko defee kenn ku nekk rek xam ne moom euh, Mamadou la ñëw na te kenn ku nekk xam ne incha allah bis bu ñëwee ba wan wàññu ginnaaw danañ kenn ku nekk da nga xam ne Cheikh Mamadou Fall ñëwoon na fi incha allah jërëjëf sëñ Cheikh naa ñoo ngi lay ziar di la màggal bu a di ziar mbokk taal bi nga xam ne ñooñu safoo Tivaouane la daañ la interviewat pour nga gën a indiwaat ay leeral rek ñu gën a xam ñu teewlu ndax sëñ baa ngi ñëw euh, nga wax tuuti rek ci mbokk taal bi nga xam ne ñoo ngi fii nii ci aéroport bi di xaar sang bi loo am looy wax tey ak loo yëg ci nga xam si ne gaa yëpp a ngi fii ci aéroport bi waaw xanaa rek di sant bu baax ndax kenn ku nekk euh, ni nga bàyyee sa yitte jàpp ne gan gi sa gan la ba nga xam ne da nga ñëw ngir fas ko yónnee teeru teeru bi nag ñuy bëgg saa yu nekk ñuy ànd ak dal ndax dañ fay nekk ak ñoo xam ne yàlla dogal na ñu wuute ak ñoom ci lu baree baree bari ndax ñun dafa am lu ñu tënk ñun lislaam moo ñu tënk kon fépp foo xam ne ña ngi fay daje rek ñu ngi ñaan saa yu nekk rek ñuy wanee référence boo xam nekk modèle boo xam ne kenn ku nekk da ngay roy ci ñun ndaxte yar nañ ñu jàngal nañ ñu te kenn ku nekk nga xam ne euh, wax dëgg yàlla da nga da nga mën a euh, teeru gan gi ba nga xam ne euh, ci dal ak tekk ak tey ba kenn du ñu jëppi te kenn du ñu mere. kon nag ñu ngi wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg lool ci mbokk yi ñi nga xam ne amoon nañu yéene bëgg a ñëw te ñëwuñu it wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di xam rek di leen jox rendez-vous ci dimanche bi incha allah pour ñëpp mën a siyaar sëñ incha allah jërëjëf sëñ Cheikh naa ñu bëggoon xam adresse bi rek fan la adresse bi fi nga xam si ne fa ñuy defee ngan gi fi salle bi nekkee waaw xam naa salle bi adresse bi mooy euh, Casa di Portugal la mooy fi nga xam ne suñ mbokk yi nga xam ne ñooy waa kër Cheikh El Hadj si fi ñu doon dajale dalale sëñ Habib si Euh, foofu lañ fas yéene defe ngan gi te it ñu ngi ciy woo ñëpp rek incha allah xam na sax danañ andi ay leeral yu gën a yaatu joxe adresse bi yëpp def ko ci télé bi incha allah ñi ci woon nag waa tubaab euh, Tivaouane Baraas Tivaouane TV mhm. Tivaouane TV di am fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi nag comme ni nga ko tàmbalee waa lépp jàmm ñu mel ne nag gisu ñu leen fi waaye ñoom tamit ay jàmbaar la ñoo ngi woo ñëpp daal waa Touba Baraas TV waa Tivaouane TV waa lépp jàmm TV ñi nga xam si ne ñoo nekk fii nii ambu télé yi ambu nga xam si ne lépp lu fi am rek ñi ngi ciy taxaw bokk liggéey bi ñoo ngi woo ñëpp di jaajëfal ñëpp sañ seexu naa kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax baax na kon jërëjëf kon média bi kon woote baa ngi noonu ñu xam ne bis bu seen bis la ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatulah taxawal ni di sunu jëwrin di jëwrin Cheikh Ndiaye ñu fas yéene koo jox kàddu gi rek mu am ay kàddu yum ci jottali mbokk daal bi nga xam ne ñu ngi safoo Tivaouane TV Serigne Cheikh ñoo ngi lay nuyu di la bu baax a baax. waaw sëñ Pape salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen nuyu bu baax di nuyu télé bi de Tivaouane Brésil TV di lu bu baax a baax seen liggéey waaw comme noonu ko waxee rek tey jii di bisu talaata ñetti fan ci weeru juillet 2018 di bis boo xam ne histoire yoonu Mouride dana ko marqué ndax xalifa bi Serigne Fallou di Serigne Abo. moo njëkk a teg tàggam fii ci Amérique latine waaye nag ñun waa Sambolu ñu am tawféex gi mu wàcc fii ci ñun ñu ciy sant nag Serigne Touba day wane ne li ñuy liggéey liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba nangu na ko ba njabootum Serigne Touba gi di ñëw fii ah di ñu fi fekk si ba ku dégg Brésil rek ne faaw ma dem fa seeti leen dafay ñaan ñëw sëriñ beet rafet nañ ci njort ndax na ñëw na ci jamono ju ju xat ñëw na ci jamono ju bëri jafe-jafe ñëw na ci jamono ju bëri coow te moom mooy Serigne Fallou fu mu dem rek maanaam bu fa ñaanee suñu borom wàcc fa ay tawféex kon nag yàlla ñëw indal ñu ay xéewal di rafet lu baax ñii seen déplacement ndax li dafa rafet day wax ne l'islam bi la la sëñ Sidi Moxtaar doon mooy amul murit amul tijaan amul xaadir amul layen l'islam moom l'islam la rek loolu la sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru yeesal mhm. moo feeñaat fii ci aéroport bi ñuy sant sëñ Tuubaa baax jërëjëf wax jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Seex ñoo ngi lay ziar bu baax a baax kàddu na ñoo ngi lay jaajëfal bu a baax kon ba tey ñoo ngi taxaw ak sunu jëwrin jëwrin di jëwrin Ousmane Baye Fall di xam ne moom mooy jëwrinu Baye Fall yi fii ci diwaanu Brésil rawatina fii ci diwaanu São Paulo sëñ naa ñoo ngi leen nuyu di la ziar bu baax a baax tey ñoo ngi fii ci aéroport euh, Guarulhos bu Brésil euh, fii tey usmaan ñuy teertu gan bu tedd gi di Serigne Abo di xalifab Serigne Fallou tey Serigne naa loo yëg ak tey ji yow mi nga xam ne yaa yor kàddu Baye Fall yi tey lan mooy sa yëg ci bis bi. waaw euh, xanaa di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di leen nuyu di ziar di jaajëfal suñ mbokki taalibe seex yi di def interview bi fii te xam ni li Serigne Sidi Muxtaar doon ñaan moom lépp mat na ndax lépp doon benn waaye nag pap tey moom dañoo am sant ak mbégte ndax kenn ci njabootuk Serigne Touba di kenn ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall moo fi teew waaw di sëtub Serigne Touba di sëtub Cheikh di Serigne Abo di ko ñaanal mu yegsi ci jàmm ñu teeru ko ci jàmm te defal ko ngan ci jàmm waaw mbég am nañ ci mbégte lool nag am nañ ci mbégte lool ganu murid yëpp la waaye rawatina ñun Baye Fall yi rawatina ñun Baye Fall yi dëgg la Seydina Ousmane ñu bëggoon a xam tey Baye Fall yi moom lan moo ciy seenub cër ak Baye Fall yi lan mooy seen taxawaay ndax tey ku xool sa ginnaaw xam ne tey Baye Fall yëpp a ngi ni taxaw xam na ko ndax leeral nañ leen ko. ndax sëñ Abo day li boole Serigne Touba ak Cheikh Ibra daa fed da koo feddaliwaat. da ko loolu moom jëmmam ji da koo feddaliwaat ab seere la ci. ndax sëtub Serigne Modou Moussa Fall la. di sëtub Serigne Touba. kon moom jëmmam ji dafa am loo xam ni daf koy feddali ci teewam fii ndax doomu sëriñ Modou Moussa di doomi Cheikh mooy waajuram. kon jëmmam ji daa am lu muy seeree kon loolu moom Baye Fall bu mag a mag lañ ci am moo tax tey boo gisee teewaay bi nii war a xam ni tey jii lu leen yitteel la te lu leen ñor la te sori na ci ñoom lool lool lool nag. dëgg yàlla. ndeysaan jërëjëf sëñ Ousmane ñu bëggoon a xam tey boo amee lenn loo xam si yaa ngi koy wax ci télé bi di Tivaouane Brazzaville nga xam ne suñuy mbokk ñoom tamit lu xew muy murit di tiijaan bi liggéey bi nga xam si ne ñoo def interview ak Tivaouane Brazzaville TV tey loolu lan ngay leen di jottaliwaat di mhm. leen ñaanal liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def. Mhm. liñ ciy sàkku lépp yàlla na suñu borom dajale ndax lu baax moom mënut a génn baax lépp lu baax rek ca fa mu war a jaar mooy ci baax kon loolu moom dañ leen ciy sant di leen gërëm di leen jaajëfal waaw seenub cër lañ doxee rek a jërëjëf Seydina Ousmane ñoo ngi lay jaajafal bu baax a baax ki ngeen ci àndaloon di pap bu Serigne Abdou Karim ñu nekk fii ci euh, aéroport bi ànd ak kook euh, télé bi di Tivaouane Barazu TV kon ñoo ngi leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñu taxaw ak kii di sëñ Abdou Aziz di sëtub sëriñ Touba ndaysaan ñu fas yéene koo joxe rek euh, kaddu yi mu sànce ay quelques kaddu yoo xam si ne ndaysaan moo ngi fii di gàttandu sang bu tedd bi di waajuram bu tedd bi di sëñ Abou euh, sëñ Abo euh, imnu sëriñ Fallou sëñ Abdou ñoo ngi lay ziar baax a baax. auzu billah bismillah inna waliyallah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokki jullit yi nga xam ne yéen a ñu nuy déglu di nu seetaan di bàyyi xel à travers ci àdduna bi yëpp kàddu gi jóge fii ci Brésil ci São Paulo ñu am mbégte bu baax ci ndaje mi ak jataay bi di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yéen waa Tivaouane euh, Brésil yi ci déplacement bi ngeen def ba ñëw ànd ak ñun jataay bii ginnaaw mënu santee suñ borom jënd ci sangub sangi saydu wujjoot sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal mbooleem ñi nga xam ni ñooy suñu kilifa nga xam ne ña nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp suñu borom yàggal leen fi te wéral leen di ko tàmbalee ci ki nga xam ne moo nekk ci bopp yoonu Mouride Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour surtout Cheikh Seydi Hadji Malick di ñaan di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mboolem njaboot Seydi Hadji Malick gépp di leen xam ne def ngeen lu leen war def ngeen lu rafet def ngeen loo xam ni tey ñëpp bëgg nañ ci ndax da ngeen a dundal waxta simo bi hablillahi jamian wala tafarraqu taxaw def ngeen it innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum si amam Bamba Xaadim Rasul kat daf ñoo jàngal ni fala tu'addu man ra'aytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah loolu mooy bu leen noonu képp kuy wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah te fii ni ma ko doon waxee léegi ci beneen télé bi ànd bu rafet fi am séparation amu fi diggante ahlu turux yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp ndax luñ xewle nii ngeen di ñëw yéen lu ngeen xewle kasaalika ndax Maodo ay Bamba Bambaay Maodo du ñaar kenn lañ ñoo bokk maam Maharam Mbacke kon lii lu rafet la loo xam ni ñi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal di ñaan yàlla fi fi ngeen bëgg yóbbu liggéey say Cheikh Seydi Hadji yàlla defal leen ci lu kawe seen njort di nuyu sunu jëwriñ yi nga xam ni tey ñoo ànd ak ñoom nekk fii ci dëkk bi ba tàmbalee ci eh, sëriñ bii nu àndal muy Cheikh Mamadou Lamine Bara moom sëriñ Abo mii ñëw di nuyu jëwriñ Cheikh Ndiaye mu jël nuyoo bi tegal na ko ci loxol mbooleem mbokk taalibe yi mag ak ndaw góor ak jigéen yëpp bàyyiwuñ kenn di am gan bu tedd nag ki ñëw kan la Cheikh Abo Baraka ibnu Cheikh Mamadou Fadal kenn du ko laajte di xalifa sëriñ Fallou ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te réew mi amati na mbégte am na jëmm yoo xam ne buñ jógee def déplacement fu ñu jëm suuf sa day yëng ni ñëw nañ fi jëm jaww ji yëng ni ñëw nañ xataa ba jën yi ci géej gi sax day yëng ni ñëw nañ fi ndax ñooñu fu ñu jóg rek ay xéewal dotti ko kon ñi ngi ñaan yàlla ñu gàttandu ko mu agsi ci bismillahi rahmaani rahim ñu dalal ko ci bismillaahi rahmaani rahiim mu nekk ak ñu tàggoog moom ci alhamdulilahi rabil alamin ba gunge ko te lépp lu mu ñaanal yàlla na nu dal ñuy itam ñaanal ko mu yàgg loolu te wér di leen xamal ni euh, lii ngeen def nii ak benn la la am nañ ci mbégte ba fu mbégte mën a yem ndax da ngeen da ngeen a dundal lu lu kawe loo xam ne sof ak sos du benn ndax sos mooy loo xam da nga fekk mu ne fi sof nag mooy lu fi ne ba pare nga sof ca dara kon rafetal ngeen Sëñ Tuubaa kat wax nañu ni ci masaalikul jinaan fa kullu wirdin yuridul murida li hadratullahi wala yaida sawanan sama ilal jilaani awin sama li ahmada tijaani mooy Cheikh Ahmad Tijaan Sërif aw li siwaahuma min al axtaabi iskulum xatan ala sawaabi fépp wirdu waay jàpp te téye ko di def borom wirdu wa la mu digle di bàyyi la mu tere résultat am na ca kon lii ngeen def mooy benn le mooy moom mooy jokk mbokk mooy rafetal mooy rafetalub ànd di ñaan suñ borom li ngeen ci jublu ak li ngeen ci bëgg lépp yal leen ko yàlla defal barke Seyduna Muhammad sant nañ leen baax gërëm nañ leen ñu ngi leen di ñaanal baax di ñaan yàlla ci waay teraanga yëpp ñu si bokk ko waaw ndeysaan jërëjëf jërëjëf sëñ Abo jërëjëf sëñ Abdou Aziz ndeysaan jaajëfal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax baax ci kaddu yu rafet yi nga xam si ne ah, tegtal nga ko fii ci diwaa ci ci ci télé bi di Touba Brazil TV ah, Tivaouane Brazil TV nga xam ne Touba Brazil TV ak Tivaouane Brazil TV yëpp benn lañ ndeysaan ñoom ñoo doon ay ay tijaan ñu doon ay murit nga gis man mi di di nekk ci télé bi tey doon taalibeb sëriñ Abdou Karim Mbacke ah. ndeysaan ñun ñëpp benn lañ du xamee woo murit ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax sëñ Abo ñoo ngi lay siyaar baax baax sëñ Abdou di la ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér jërëjëf waay ñoo ngi leen jaajëfal baax baax ba léegi ñu ngi waat fii nii ci aéroport ba tey ki ñu taxawal nii di suñu mama di suñu yaay mama Africa nga xam ne mooy soxna si nga xam ne mooy soxna si Baye Ndiaye nga xam ne moo jiite euh, mbokk taalibe yi nekk fii nii ci diwaanu Brésil yëpp nga xam ne mooy suñu papa amul Tidiane amul Murit amul ku manti doon fii ñoo taxaw ak soxnaam di soxna mama Africa mama Africa ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax di fas yéene waxtaan ak yow rek tuuti rek ci ay kàddu yoo xam si ne tey loo yëg xam ne si sëñ Abo di xalifab mi ngi teew fii nii ci diwaanu Brésil ren di première édition mu fi teew mama ah, soxna mama boo amee loo ci ah, sànni yan kàddu nga ciy sànni. waaw nee na tuuti kontaan ci bis bi rek di nuyu sama doom yëpp yi fi nekk bis taxawaay biñ taxawoo gis taxawaay biñ taxaw pour ñëw taxaw fii tey jii di. jël si sëriñ bi fii ci aéroport yi ba war koo yóbbu mu wax ba sëriñ bi wàcc fii tey jii dañ cee kontaan ba xamuñu lu ñuy wax ndax dafa mel ne rek sëñ Touba moo ñëw tey. dafa mel ne tey sëñ fàllu Mbacke moo moo fi nekk te moom sax moo ñëw sëñ fàllu Mbacke ci boppam moo fi ñëw kon boog ñun bëgg ñaan kontaan rek mu ñaanal sama doom yi fi nekk yëpp mboolem bu ñu may leen gudd fan ak wér gu yaram ak xéewal bu bëree bëree bëri laa ñaanal xale yi ba ñu te tedd di terle mu ñaanal ñu. jërëjëf maman ñoo ngi lay ziar bu baax a baax ndeysaan kàddu yu rafet yooyu noonu.